gars yi ziar naa leen j'espère que rek si jàmm baax euh, question tey bi nag mooy benn membre bu ma ko posé si communauté Galsen Tube muy ndax dollar zone yu bari ci seen YouTube ndax dina indi problème ci seen YouTube euh, réponse bi mooy waaw dollar zone yu bari ci seen YouTube mën na indi problème ci seen YouTube euh, problème bi ci njëkk bi mu la mën a indil mooy dafay wàññi li nga war a gagné ci ay revenu parce que vidéo bi nga xamante ni maanaam YouTube def na ci dollar zone vidéo boobu ci boppam moom monétisation limitée lay nekk maanaam YouTube presque du la ci dawal ci ay publicité voilà te loolu c'est très important publicité mooy tax ngay générer ay revenu YouTube su jëlee vidéo bi def nii am na lu ci génn loo xam ni peut-être gis na ni jalgatiwul bu baax yoon mais daal annonceurs yu bëri bëgguñu seen publicité di daw ci mel noonu YouTube mën na def euh, daal maanaam xelam nday téye ci vidéo bi YouTube def monétisation limitée bu ko defee dollar zone moo ci apparaître su ko defee ay publicité du ci daw comme nag publicité yi moo tax ngay mën a ngay mën a monétiser moo tax ngay mën a gañe xaalis boobu léegi bu publicité dawul ci vidéo bi déjà loolu manque à gagner la léegi nag su fekkee dafa bëri ay vidéo yu baree bëri ci chaîne bi loolu déjà rek premier impact bi muy indil chaîne bi mooy loolu moo revenu yi bi di am day wàññeeku bu baax a baax selon nombre dollar zone yi léegi nag beneen affaire bi ci nekk mooy bu baree ba mu ëpp YouTube mën na la euh, démonétiser sa chaîne voilà pour règle euh, communauté loolu tam ñu bàyyi ko xel euh, bu baax a baax moo tax dollar zone baaxul ci seen ku am dollar zone da ngay taxaw pour dindi ko su fekkee benn partie la ci vidéo bi nga dagg partie boobu su dee vidéo bu ñu mën a dagg la vidéo bu ñu mën a dagg mooy vidéo boo xam ne vie yu mu ëpp su dee nag euh, par exemple tey image bu génn la nga def modification fulute ko mën loolu tam mën na ko dindi voilà su fekkee nag option yi nga mën a utiliser pour dindi ko euh, dafa am jafe-jafe li gën mooy vidéo bi nga defaraat ko li ci am tax mu am dollar zone waa nga dindi ko loolu c'est très important kon loolu mooy réponse bi ci chaîne bi nga xamante ni dafa bëri ay dollar zone jërëjëf